ba denee question Sénégal xam nga ne fu mu toll nii moom mu ngi préparé lii di coupe du monde. Mhm. ñu nekk Égypte. xam nga man dama ñëwoon toog ci seen site na leen Sénégal incha allah coupe bi fii lay ñëw. waaw moo tax ma delluwaat si yow laajaat la question bi. bu ngeen demee bu ngeen delluwaatee xool li li nga xam ne def naa ko. Mhm. wax naa ko ma leen Sénégal ñu ne naa ma leen coupe bi fii la jëm ci kàttan suñu borom. te gis nga ba ma koy wax boobu ñu ngi am ay ñu ngi am suñu suñu suñu marché yi presque neexul woon. gars yi di critiquer ci critique ba fa wax ne fii la jëm si keroog bi ñu damaa toog sama salle di seetaan gaa yi di ma woo gars yi dem ba xaddi gars yi yëpp découragé di ma woo soo naa woon nu muy demee ma ne ko sol ngeen seen jokkin mbaa mbaa sol son ngeen seen jiin. naa daw ñu ne ma waaw ma ne ko kon préparé leen la lakkaayoo leen seen seen drapeau Sénégal te dañu am ndam na dañu jubilé. parce que salaatu ala nabi. billaahi man sax na ma fàl lii laa wax. billaahi mooy awaat bi gën a fort ci waat. Mhm. gars yi di ma woo man ci sama wàllu jóokin laa sol keroog. ma ne leen billaahi ñu ne waa ma ne leen billaahi da ngeen di jibile tey te boobu tiiroo bit lañu fe lañu lañu lañu tombé. gaa yëpp tiit moo tax it vaari bokkoo si de. waaye macha allah. macha allah sant yàlla. sant yàlla waaw mais tamit question bi. keroog da mel ne keroog mel ne man maa doon joué ndax sama kër daa fees del gaa yëpp ñëw di ma sargal. Mhm. kon sant yàlla am na yoo xam bu loxo yàlla may da sant yàlla mais question bi ma la posé nii posé naa ak ma xool ñeenti sëñ xaw ma ba léegi kenn tontu ma si. muy si lan. Sénégal match aller bi football contre Égypte fële si Égypte ak retour bi football fii Sénégal. dañ koy daan nañ ko daanee woon. maa ko wax man soxna Awa Fall xanaa gëmal sa bopp. ñaata la. bu mën a gëma wax lan la ñaata la mais dañ koy daan nañ ko daanee woon. match aller retour de maa la wax lii dañ koy duma. xale fi ñu toll nii. Mhm. ak ni gars yi nekkee benn nii ci Sénégal. barki Serigne Bamba fu ñu dem équipe bu ñu dem dañ koy duma mu toog xaw ma nag dañu yóbbu ji ci coupe du monde coupe du monde bi. mais bii nii dama ne bii moom dañuy qualifié dañuy dem kenn duñu téye. loolu moom leen na barki Serigne Bamba.